kuy murit ak kuy jullit yow laa di woo ci bisub seex jiili mii nuy màggalal ku ko màggal yàlla màggal ak payam ndax dafay xeej xejjam bu daa sax ci ndigal tax ba lum ñaanit mu def loola ci kun waa ji kon waajal ñëw jël lim fi jal woote bii yow boo ko déggee nanga ñëw wuute wii yiw ëpp naa def kon ñëwal na nga ñëw duyu ca ba feesal sa ko dem booba bis kuñ ca duyul kat mu doyal na nga ko waajal yow ci pas-pas bu dëgër na nga ko waajal yit ci kaamil boo wasal jàng loo man ci xasaa it tey jullil ngeen ji yonneen kon lu kon lu fi yiwu da ko jël allahuma salli ala sayyidina muhammad sallim asalaamaaleykum bokki taalibe yi noo ngi ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké toog doomam ju tedd ji Serigne Moustapha mu jël ndigal ca magam Serigne Cheikh Mbacké Cheikh Abdoul Khadir xam ngeen ni nag sëriñ Cheikh du yëkkati lenn lu ko Cheikh Amadou Mountakha joxul ndigal Cheikh Amadou Mountakha Mbacké jox ko ndigal mu jël rakkam ju baax ji sëriñ Moustapha yàlla nu yàgg a moom jox ko ndigal ak sëriñ Sidi Mbacké mii mu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ni moom lañu teg liggéeyu màggal gi ci loxoom mu yore ko at yii yëpp mu di ko def ci lan la jublu nag bisub ku kenn dul fàtte ku kenn dul fàtte mun na ci xol yi. te du ci jóg mukk xol bu ne ambal ko yiw boo ko bëggee laaj kooku mooy kan mooy Cheikh Abdou Khadir yilimaani teeg ba léegi moom ci jëmmi boppam moom la ñuy fàttaliku bis bi mu ganee woon jamono te sëriñ Touba wax ca maam Thierno Birahim la mu ko waxoon bu bis ba jotee nag ku ñëw ca bis ba am ca la Thierno la Serigne tubaa daaloon Thierno kon la Serigne tubaa daaloon Thierno Birahim ku ko bëgg a am ñetti fan ci wutam xarit di la neuf ci weer wii nu jëm da ngay ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir Mbacké kenn du ko fàtte ñu ñaanal ko fàttali ko ñaanal taawam bu baax ba ko wutu woon sëñ Modou Abdou Khadir ak njaboot gi yëpp nu toog nii nag ak sëriñ Moustapha mu santu nu yëkkati sunu kaddu jox ko sëñ bu Bousso mu yëkkati kaddu ñu doog a dem ci sëriñ bi rahman rahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin bi ahlihi wa sahbihi wa sallam taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu jaare la nuyoo bi ci yow mu dem ci sëriñ Cheikh jóge fa dem ci Cheikh njabootu Cheikh Abdul Xaadir mu dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di leen sant bu baax ci bis bi nga xam ne mi ngi agsi ni ko sëñ Ablaay waxee du lu ñuy fàtte waaye lu ñuy yeesal ci xol yi rekk lay doon ndax moom boo dee wut lislaam boo ko seenee lislaam a ngooga boo dee wut jaamu yàlla boo ko gisee ma nga noona boo dee ne ana julli boo ko seenee ne ma nga noona lépp luy lu baax sëriñ Tuubaa doon na ko doonal leen na ko ko muy taxawe lislaam di biir lu ñu ko taxawe ba tax ñëpp a ko ameel cant ñëpp a ko ameel njukkal sëriñ Moustapha mii li ci mat wax lépp dana ko wax waaye dama koy ubbee rekk ci bayit yoo xam ne boroom xam-xam bi ko wax Cheikh Abdul Xaadir la nataal dafa wax ne akrim bihi min waliyin saada man sabaqu min alkiraami jamaatin wa afdaada qad kaana tarraaka maa lam yor maa lam yurdi xaaliqahu maa lam yurdi xaaliqahu wa wa kullu maa huwa yurdi kaana mii xaadaa mu ne sanga ngoogu mm. tedd bu màgg ku sang gaa yu baax yi te jiitu ak ñum jamonoonteel ci gaa yu baax yépp mu sang leen ci ay jikko ak melo moo xam ay mbooloo lañu wala par kenn kenn lañu moo ko dee firi koy waxe mais nag sang boobu yi nekkoon na koo xam ne kii aji gàddaay la loo xam ne lii boroomam gërëmu ko tarraaka moom da koy firee gàddaay ndax jàpp ko woon ba di ko bàyyi gàddaay nga koy firee wa kullu ma huwa yóbbi kaana mi xaada lépp loo xam ne lii yàlla gërëm na ko ma ngi ko ne nangutuñu kon nag kooku ni am laay lu waay bëgg muy njariñul tey ëllëg suñ sa daa ko wax te di ko wax muy ku ne ndab la nga am na ko andi lu toll boo dikkee ñu doyal la boo bis bi dellu siwaat ak jàmm ñu àndaat ko nii ñu ko ànd Cheikh mu Moustapha noo lay gërëm li nga war a wax rek doy na sëkk xanaa dama koy ubbee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalul xalifatul am li taifatil muridiya ginnaaw bu ci seex Muhammadul ginnaaw bu ci sëriñ seex demee muy seex Muhammadul Muntaxa Mbakke yàlla ko yàlla sàmm te wattu ko ginnaaw boo xamee ne si sëriñ seex dem na ca ba jot ci moom ndigalam ak jot ci moom mu jox ko daw ul ci ñu mën a def màggal bi ginnaaw bu amee loola ba noppi nag sëñ seex jox na ma ndigal ma jot li kàddu yii ma leen bëgg a jot li ngir fàttali leen bis bi nga xam ne mooy bis biñ daa baaxoo defal Seex Abdul Xaadir Mbakke di ci fàttaliku ak gane àdduna mu war a tolloog ñetti fan ci weeru wolof wi ñu jëm waaye di war a tolloog ci weeru tubaab juróom-ñeenti fan di dëppoog bisu talaata ñuy ñuy ñaan àgg ci ak jàmm te defe ko ne ko borom bëgge mooy dundal ko bu baax a baax a baax a baax ci balañ ca àgg lu waaye man ci salaatu ala nabi lu waaye man ci njàngum alxuraan nu mu gën a bare ak nu mu gën a selle la ca gënal borom nag te gënal ci suñ borom bi nga xam ne moom moo moo moo moo ñu bind mooy e, e, lépp na ànd ak ixlaas rek na sell salaatu ala nabi yu na sell ka alxuraan yi nga xam ne mooy lépp di léppi sëñ bi na sell ñu jàngal ko kaamil yi yu bari ak xasaayiti sëriñ bii yi nga xam ne làmboo na lépp ndax buñ ko bindoon jox la ko nii na ko mag ñi daa bindee da ngay fekk lépp fees dell ak turi yàlla ak salaatu ala nabi mag ñi dañ daa bari turi yonent bi di ko wertal turi yàlla yi ñu xonqal ko waaye xët bu ñu la ci wan da fekk mu fees dell ak loola te way wu ne ak salaatu ala nabi moom war a dem kon ku bëgg lu waaye bëgg ci salaatu ala nabi gi ñu yàlla digal boo nee ci xasaay di mën ko ci amee yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lu ci waay man ci loolu nag ko defal bu baax a baax a baax ñu ngi koy digal nag daara yëpp fu daara mën a ne tàmbalee Tuubaa tàmbalee Njaaréem tàmbalee Daaru Salaam tàmbalee Daarul Muxti ak këri Sëñ Tuubaa yëpp nag fu ci waay man nekk rek yi ma tudd ak yi ma tudd ak taalibe yi mën a ne te am ko rek nañ ko jàngal alquran ak xasida ñu ngi koy sàkku ci ñëpp ñu ngi ko yëgal nag mboolem bokk jullit yi waaye ñu njëkk ci mboolem këri lislaam yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ bi ñuy ay bokk ñu bokk ak ñoom sëñ bi ñoom ñëpp mboolem kër yëpp ñu ngi leen ko teg ci kër yi mboolem kër yi sëñ bi seexal yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko teg mboolem wëllëre yëpp ñu ngi leen ko yëgal mboolem ku dul soppe ñu ngi la ko yëgal ku ñëw it nañ ko daa waxee rek na nga indi sag bagaan hmm, te séentu boo àndee ko ba nga àndal na ko turandoom daa defee yàlla yàlla mën na ko cee defee ci dara ji sëñ mi nga xam ne nag lu am ci moom la ko jëlee moom yàlla yàlla duyal la ko ni ni ngay ñaan Sidna Abdou Xaadir Jeylaani nag mii turandoom nga hmm. am bis mu ne ku ne na ma indi bagaan ñi indi ñëpp mu romb ko rek yi daal di soppiku wurus waaye nag sàngtaat la yor yi wurus waaye digg la yi yi soppiku wurus waaye yëpp euh, daa daa duy ba fees mu ne ku ne nag fas yéex ba nga ma indi laala bi yéen loolu mi ngi ci téere yi. Hmm. <laughs> Eh, kon kon yàlla na ci yàlla dimbale bañ àgg ci ak jàmm moom nag. Hmm. doonoon na koo xam ne li ñu war a jànge ci bisam ku bëggoon ay bokkam la ku bëggoon Serigne Touba la ku bëgg ku mbokkal Serigne Touba ku ne. noonu la noonu la meloon te nag lii may wax ci moom noonu la njabootu Sëñ Tuubaa gépp mel mag ñi dañ daa wax li ni ko sëñ waxee foofu moom kan nujoomi man talqa minhum xiltahoo kaana sayyidan axyaari ñoom ñoo ki biddiwa yam moo kuñ ci toll ci bisam rek bu ñu waxtaanee man nga ne kooku mooy sangu tànn yi te fekk bu keneen rek mu daal di mel noonu ndax li ñu am dañ ko jëlee ci moo tax mu ne moo tax beneen waykat ni wax ne Euh, euh, wa man yakuni cheikhu alqadimu aban lahu tariqu hawaadihi wa yanzur wa yashru képp koo xam ne am ganaar ko yam ko sëriñ di sa waajur da nga doon ndab lu neex a jëriñoo raqiqul hawaadi bu ko arab ne waxee mooy ndab lu pegg ya euh, tuuti nga xam ne ku ne mën na caa jëriñu boo dee naan boo dee lekk mu ne ku sëriñ Tuubaa di sa waajur sa ndab dana neex a jariñoo danga set da nga tedd kon moom mii moo tax yàlla mayoon ko mu mu doon koo xam ne dundam bépp mi ngi ko jeexal ci soññ ci yàlla fu lim ñu daa digal nag mooy istixaamatu rek ngir bëgg ñëpp jariñ ndax istixaamatu boo ko amee li ngay wut yàlla yëpp da nga ko am inna lazina qaalu rabbuna allah suma staxaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxshanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kon loolu la kon moom ci loolu la nekkoon ba yàlla may ko nag mu saddal ñu ci ni ma ko xamee ñeneen ñi xamee waxat daraba lana bi taqwaahu wa nasaatihi wa suhdihi wa waracihi wa xashiyatihi min allaahi wa xidmatihi fi ddiini wal imaani irdaan lil waahidi dayyaani al masala al ahlaa lima yajibu an yakuna alayhi man araada an yakuna muminan musliman muhsinan sunniyan ci ragal yàlla am wane wane nañu jàngal nañu ci akuk sellam akuk dëddoom adduna akuk sàmmoom ak lim doon liggéey la diine ak liimaan ngir wut payug yàlla wane na ci misaal mu kawe ci ni ab jullit bu bëgg a nekk moomin dëgg nekk muslim dëgg nekk muhsin dëgg nekk sunna yu dëgg ne koo ko war a mel boo ko jàngee ci moom dana ko ci mën a am kon yàlla na ci yàlla jëriñ te loola ku ni mel yaay yaay mën a nekk dëgg-dëgg murit yàlla na yàlla defal kon nag yàlla nu yàlla eh, fekkeloo bis bi ñu defee ko nañ ko daa defee te ku te kuy ñëw rek nga ndaali sa bagaan te ànd ak xaqiida ba mu war a àndal wa kullu haamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum dégg ngeen sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Abdou Khadir eh, tubaarkàlla Mbacke ñu ngi lay sant beesalaat nañu peq ñun ñëpp ñu ànd déglu sëriñ Bousso ci turu bokk yi sëriñ Alaaji Bousso ci turu bokk yi ñun ñëpp ñu àndandoo ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci turu Cheikh mi nga xam ne mooy naatu rasmi yi ci yu màggal gi ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm. jot li kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali ci woote bi nga xam ne jot na ndigal ci ay kilifaam mu woote ko mu ne kon woote bi mu ngi woo mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la bokkal ñoo ma xam dañu jiitu lu ci boore wala jigéen boore la mu tey bokkee rek ñu ngi lay woo ci bis bii di ci woo mboolem njabootu Cheikh Amadou Khadim bépp nag tàmbalee ci Cheikh Amadou Moustapha ba ci Cheikh Amadou Mourtada njabootu Cheikh Soxna Fatim ci def jabootu soxna may mun ci gën a mujj <coughs> di ci woo mboolem mbokk mu yi nga xam ne bii ñoom ñoom moom bis bi ñoom ñooy woote kon ñëpp rek musée ak affaire jafe ak mbokk yëpp di ci woo itam mboolem seex si nga xam ne bi nekk si biir waxoon léegi yow mu aju ci Sëriñ a nag am na ci ko jëkk a jéblu ñëpp ñu leen woo ci bis bi ñaan ñëpp teew nga ñëpp dinañu teew ngi ci woo itam mboolem ñi nga xam ne bii rek ñoo daa waajal ay xéewal ci di ko indi ci bis bii te ñooñee bokk na ci ñoom njabootu euh, sëñ Cheikh Niang Diaby ak sëñ Cheikh Bara Mbacké mii ak mboolem ak sëñ Seydou Seydou Niang ak sëñ Galasma nekk mboolem mbokk yi nga xam ne daañu ko def ak mboolem turandoo yi nga xam ne bii dañu doon ay bagaan yu mën di ko indi ci woo loolu Seydou Khadir yi ñu ngi wooye itam mboolem xarit yëpp nag ak soppe yi Seydou Khadir moom doon ko xam ne bi ñëpp ay xaritam lañ xaritam ñëpp loolu itam yëpp soppam lañu soppam ñëpp la képp ko xam ne julli nga rek kon ab xaritam nga moom nag am na ñoo xam ne dafa dafa dañ ko xarit te moom waaye moom xarit nga xarit kon ñu ngi woo ñëpp nu ñooñu nag kii ko soppoon ak ki ñu soppoon yëpp itam di woo itam mboolem tamit turux yi yëpp nag ak seen kilifa yëpp kilifa diine yi ak kilifa waaye ma doon rek seen moom doon doon kilifa benn tarixa rek kilifa diine yëpp la woon mbokk yi di woo ak si ñëw kër yooyu di woo itam mboolem munasama islam yi yëpp mboolem njaboot islam yëpp ñu leen ci woo mbooloo mu ma doon rek ak fu ma di bokk rek ci lu ngay wooteel kon moom ngay wooteel kon ñu day woote bu boobu di ci woo nag kilifa réew mi ak euh, jëwriñam mag ji ak mboolem ko moom yëpp wala gouvernement bi yëpp kenn itam luy jooy itam mboolem parti politique Sénégal gépp nag ak mboolem mbooloo yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp lañ ci woo di woo tam la bi ak mboolem ñu ne service yi ci région bi yëpp ak mboolem ñu ne ci département bi yëpp ak mboolem ñu ne ci mairie bi yëpp ak kilifa yi ne ci dëkk bi yëpp yi leen di woo kenn ku nekk rek foñ ci laa jàpp ñu ngi lay woo nga jàpp ñu ci laa jàpp daf la xam ne bis bi sa bés la kenn ku ne xam ne fàttali rek la kenn si gàttal fóon moom ñu rek la waaye xam ne ni kenn fàttiwu kon ñu ngi woo ñëpp di bàyyi xel ñëpp nag sëñ bi li mu wax léegi ci ndab yi moom <clears throat> mooy ku ne nañu la sa ndab ma ne sama ndab mooy li des xarnu bi na mel ni àjjana xarnu bi daal li weesu woon lépp jafe-jafe yëpp ne li weesu li weesu xarnu bi daal ni mel ni àjjana rek loolu la ñuy ñaan kon sëñ bi sa ndab mooy loolu wees xam ne yëpp mel ni àjjana rek saa rek bati na kon suñu daal ñu ngi woo ñëpp kenn mboolem daayira yi mboolem mbokk yi mboolem xarit yi képp ko xam ne sëñ bi xarit woon wala na ci bisat bii yëpp seen xarit jërëjëf dégg ngeen sëriñ Alaaji Bousso wax ji wax léegi nañu jox sëñ Ismaïla Mbakke mooy wax ci turu ci sëriñ Abdul Xaadir yi su ko defee ñun ñëpp ñu ñu àndandoo déglu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu ku ne sa tur ak sa sant di jiital ci néew bi Cheikh Mamadou Mountakha Bassir sunu borom yàggal ko fi ah, di ñaanal Serigne moom Serigne Abdoul Khadir borom guddalaaw di nuyu sunu kilifa ki nga xam ne moo jataay bi ak sunu bàyyi sunu jëriñ Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir di woote yi turu Serigne Abdoul Khadir yëpp rek. nga xam ne ñoo àndoon liggéey bi mu mel na li tuddee ki koy defal muy Serigne Abdul Xadar dañuy wax ne lislaam toolu toolub yàlla moom nag da cee amoon tool bu yaatu boo xam ne ni yaakaar naa bay na ko bay bu set wicc ba tax na at mu jot set yi di ànd di takk seen digg ren nag dañ ciy soññe rek dañuy wax ne daa am koo xam ne royteef la ci bépp murit muy Cheikh Ibrahima kon nag bu ñuy soññee ab taalibe dañ lay soññee ci jëmmi seex bi mhm. kon sëti sëñ Abdul Xaadir yëpp nañ takk seen digg ngir waajal bés bi di ci soññ it sunu mbokk yi muy waa kër soxna xat yi ak waa kër soxna may yi rawatina taalibe yëpp bis bi nag ñu ngi koy defee fii ci kër Serigne Mourtada ci mbaar mi conférence sëti sëñ Abdul Xaadir sëriñ Ahmadou Mbàkke mu Daarul Moxti di ci waxtaan muy tombeek euh, le 7 juillet di tombe ak dimanche incha allahu rabbi bàyyiwuñu kenn nag li ko delee ci kër Cheikh Mahamadul Moustapha ba fi kër Cheikh Mahamadul Mourtada ak soppee Serigne Abdoul Khadiri ak mbokk yépp ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñu kenn ñuy góor ak jigéen mag ak ndaw bis ba daal képp ku fa teew yàlla na sunu borom faj say aajo ndax Serigne Abdoul Khadir loolu rek ko andi woon ci àdduna muy ràmm jàmm te yaakaar na dox na ci lu rëy rëy dañuy wax ne eh, néegub yàlla bii képp koo xam ne daana la fa gis nit nit mënatut a wax hmm. lenn lu mën a jàpp ci lu dul ak guddi kon nag bisum njëggal la ndax yaakaar naa maam Thierno ba sëriñ waxoon na ko demal yóbbu tur wa te yéexal say jéggu képp koo xam ne nii euh, romb nga ko euh, ba bis bay delsi képp koo xam ne nii tase nga fa ak moom jéggal nañ ko kon bisum njëggal la bisum njëggal boobu nag woote ko yomb na li ko sunu wajur waxee muy na ñëpp indi seeni seeni bagage Euh, ndax duy ci dana yomb kon nag yàlla nañu yàlla doole dimbale ñu fekk ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah dégg ngeen sëriñ Ismaïla Mbacke wax ju rafet ji mu wax ñu jox kàddu gi nag sëriñ Maam Mor Jatra mu wax ci turu dayre bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu turu sunu jëwriñ sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir di leen nuyu itam toujours sëriñ Cheikh Gumbal mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar nee na mi ngi woo daayira Dakar yëpp di leen ci bis bii nga xam ne amuñ lu may moom niki noonu yi noonu lañ ci soññee mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci sëñ Abdul Xaadir te nekk ci diggante ci réseau bi yëpp ak ci réew mi fu ñu mën a nekk ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ Abdul Xaadir te réew ku ci mel ni fédération état yi te sëriñ Mor Sànq jiitu ko li ci woo magi bi yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi te sëriñ Moulay Fall jiite leen ak ak sëriñ Moustapha di ci woo mboolem daayira boo xam ne aju na ci njaboot sëñ Abdou Khadir ak num ci ajoo ñu xam ne ñu daal benn bis la ñu am mooy bisu màggalu sëñ Abdou Khadir te ren mu war a nekk le 9 juillet incha allah ñu mu am programme bi ni ko sëriñ bi waxee nga xam ne ni nañ ko baaxoo defee ñi xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi doon liggéey doon doon nekkoon fi wetam di ay taalibe yu mag di ay jëwriñ ci kër gi mu am bis yu ñu leen jagleel bis yoo xam ne ci la ñuy waajale màggal gi ren le premier ñu war koo def ci suñu mbokk mux mux yi ñu di ko def fii ci asalem bi Serigne bi foofu la foofu lañ koy defee muy le premier bu bu bu cinq heures ba ca topp di la trois ñu di ko defee njabootu Serigne Mbacke Kanni ku ne xam ni demee ak ak Serigne bi ñu di ko defee kër Serigne Mamoun mu nekk fii ci yoonu euh, Sourawe de ni ki itam nag day buñ ko defee loolu ba noppi dañ njabootu si Abdou Khadir at jot ren nag ñu def de kër Serigne Abdou Wahab moo Cheikh Abdoul Khadir muy doon la cinq incha allah ba ca topp mooy doon la sept bi. mooy doon conférence bi nga xam ne moom la moom la sëriñ yi mooy programme bi nga xam ne moom lay moom lay màggal gi tëddee li ci des nag mooy fédération bi li ñu daan def muy ren ku ne xam na ne kër gi dafa nekk ci ay chantier ay liggéey yu mag ne fi bu noppee mu war ñu war koo seetal ba mu set wécc bala gan ñee yegsi bis boobu ne ñu ko jàppale 5 incha allah kon nag képp ko yaakaar si Abdou Khadir wala nga sopp si Abdou Khadir ak foo mën a ci biir dëkk bi ñu ngi lay woo ci mbale moomu di ci woo maire bi nga xam ne mooy maireu dëkk bi mu jàppale ñu ci camion yooyu ak ak ay ay bil de serre ndax garaawaa bi bëri na ci kër gi bëri na ci fee ca sañcee nga kër sëñ Moussa kër sëñ Seex yëpp fu ci ne ay garawaa dafa nekk yoo xam ne dañu ko war déplacé kon loolu ñu ngi ci woo teel bi yëpp le cinq incha allah ñu daje fi bu ko defee le 6 euh, bâche yëpp noppi ñu teeru gan yi teral leen euh, kenn ku ci nekk sa bagaan gi nga xam ne moom nga sëñ bi wax léegi nga mën koo duy ba mu fees asalaamaaleykum wa rahmatulah ne mi ngi soññ mbooleem turandoo Sëriñ Abdou Khadr yi fuñ maa nekk ci réew mi ak bitim réew mu xam ne suñu bisub turandoo bi agsi na te ni mu koy wax nekk ku ci nekk ñun la ci dimbali ndax xam nañ ne ñun ñu ko tuddee Sëriñ Abdou woo xam ne mënatuñ koo fay lu dul su bisam dikkee ñu def ci liñ man ak liñ mën ñu si Cheikh Abdou Naan fu aw turandoo nekk rek ñu ngi lay soññ bu baax li ci jiit na mooy di sëriñ bi soññee léegi muy jàngum alxuraan turandoo wu ko man na jàngal sa turandoo ab kaamil ba loo man boo ko mënul na nga sàkk la ko jàngal ndax li ko waay defal li ko ci gënal mooy jàngal alxuraan karim nee na mi ngi soññee bu baax a baax ci alxuraan jooju lu ci waaye man te mën a jokkoo commission culturelle bi féeri ci daayira Tondoy wax leen ko bu ko defee ñoom daan dajale lim yooyu ngir rek xam ne liggéey bi ñu doon def mu jëm si Abdul Xaadir taxaw nañ ko nañu ko war a taxawoo li ci dolli nga xam ne daayira turandoo bu nekk daana ko barkeeloo ci liggéey bi ngir sàkkoo ko ngërëm ci bisu turandoom bii loolu it soppiku nam daan doxe ku jiite section yi ci réew mi ak bitim réew ku nekk sëñ daan lay soññ nga soññ nga daan àndal kenn ku ne nga dem ci sa jawriñ jokkoog moom la nga daan barkeeloo ci liggéey bi nga def ko foofu bu dul loolu yi ku ñëw ci kër gu mag gi da fekk ñu liggéey boobu bu ko defee ñu ànd ak si ngay jaar ba mën a dugal sa barkeelu ci liggéey bi ndax lépp dañ ci sàkk ngërëmu si Abdul Xaadir noonu itam euh, bool yi nga xam ne muy ay ndawi barkeelu yoo xam ne fu mu lay si Abdul Xaadir ko defar di ko indi ci kër gi ngir di ko terale gan si Abdul Xaadir yi fi ñëw suñu si abdina mi ngi ciy soññee soññe na ci sëriñ ji li dël bi ngir mu soññ ci kilifa yi nga xam ne tàmbalee ko ci sëti sëriñ Abdul Xaadir yi tudd sëriñ Abdul Xaadir ñoom ne ci ñoom na nga ko daan defee sëriñ si abdina mi la ci soññ bu yi te jamono ji ne ci ñoom jox ko lettre ngi ko def ci liggéey bi ngir terale gan ñi loolu yi sëñ si abdina mi ngi ciy soññ ñëpp la ca dolli ko nag mooy palaat yi nga xam ne section bi féete Touba dañ ko doon soññee ngir tolloo wu ko mën nga jënd benn palaat ba man loolu itam lépp jëmaat liggéey bi ngir ak jàppande rek lay bi yaa ngi ci te bëgg ci am loo gën a leer it boo wootee ci numéro 77 455 67 30 lañ ci am leer leer yu gën leer ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu jàmm te nanguñu lépp luñu jëf yàggal fi sëriñ si jaboor si Abdul Xaadir yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi bu baax ñu nag ñu ngi wax ci turu Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne moo jiitee da ngay ahlu tarbiya yi nga xam ne ñoo jaaroon ci kër gi Serigne Touba Mbacke nee na mi ngi soññi ñëpp koo xam ne ci donga ba jaaroon ci kër gi ñu ngi lay soññ bu baax ci liggéey bi nga xam ni dénkoon nañu ci màggal bi li loolu taxawaay bi nga xam ne ñoo ko daan taxawu waaye jàngkati alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci mbaar bi nga xam ne ahlu tarbiya at mu jot ñoo ci def liggéey bu am solo nee na ñu teel a ñëw taxawu njàng bi su loolu weesoo ñu taxaw nañ daan taxawee ci biir kër gi nga xam lu lu ñëw ci wàllu xéewal yooyu waa ahlu tarbiya ñoo ko war a dalal kon nag mi ngi woo ñëpp ci njiitul sëriñ Touba Mbacke ak si ci njiitul sëriñ Afi Bousso mi nga xam ne mooy taxawu dongay ahlu tarbiya yëpp niñ ko daan defee rek at mu jot ñun ñoo fi daan jiitu di taw toppatoo bagage yi yëpp su màggal gi jàllee tamit ñoo fi mujj toppatoowaat bagage yi yëpp niñ ko daan def kon nag Serigne Touba Mbacke nee na ñu ngi soññi mbooleem koo xam si donga bu jaaroon ci daara ji nga teel a ñëw jàpp liggéey bi kon nañ ci daan jàpp kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp ñu màggal si ci jàmm ak salaamatan wa afiya delluwaat ci jàmm ak barke Cheikh Abdou Khadre ñu ngi siyaare ñëpp dégg ngeen nag kaddu yi fi jub see yëpp ci ndigalal sëñ Moussa Mbakkam Cheikh Abdou Khadir toogal magam ju baax ji sëriñ Cheikh Mbakkam Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ni wax na ni sëriñ Moustapha doy na ma ci lépp te mu doy ko ak sëriñ Sidi mi ñu teg màggal gi ci loxoom xam ngeen ne bu ñu yendoo ci njàngum alxuraan mi ak durus durus xasida yi ba guddi jot nag ñëpp ku nekk fa nga nekkoon ak sa danga da nga fay jógee ñu ñëw ci baas bi xaadim géey moo fi fanaan ne jàng ba bët set loolu ñu di ko ñaan ñépp ñu taxaw ci ànd ko ak turandoo yi su ko defee turandoo yi ak taalibe yeeg yépp nu fanaan ci biir baas bi ànd ak xaadim ba fajar jot nag ñu ñëw tàllalaat sëñ Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir sunuy loxo ñaan sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ku ne xam ne diggam ak sëriñ Abdou Khadir njëneer yooyu doon naaw ma di ko wax toujours ma nga amee woon bul te booba Cheikh Abdou seex mun Mountakha mii la gane ji woon kon bés bu ne Cheikh Mountakha fonk na ko waaye bisub Cheikh Abdou Khadir raw Cheikh Abdou Khadir nag ku feeñ ci bisam ci lu baax dootoo nëbbu xanaa dégg ngeen la ministre boo xoon Serigne Lamine Diop nee na booy dox ci àll ba penku réer la boo teenee seen Abdou Khadir ne kabaroon mooy penku l'islam jëmu ko Sénégal yëmu ko ku mu jur yar na teg na nay taalibeem ci yoon ci biir juma la doon ci biir jàkka ci sappe si la doon tànn xaritam kon bis baa ngoog di bis Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu nu ñaan nag sëriñ Cheikh yàlla na fi yàgg téwéer